ñu rafetlu ci teewaay bi ngeen ñëwee ni ngeen ñëwee ak discipline ak ak ak tamit Pastef ak lépp daal topp ndigal discipline bi ñu ngi beral nuyoo tamit sunu invité yi ñu toogee nii seen càmmoñ mooy ñi ngeen xamante ne ne daanaka ñoom ñoo andi loo yi ñoom ñoo andi don yi. lii ñuy def nii dañoo jàpp ne tey moom mooy Noël Noël nag lu ëpp feetu xale yi la. mais di ngeen dégg ay arbre de Noël présidence ak arbre de Noël te ñun ñu foog na ne arbre de Noël ñëpp ko yeyoo donc ñu ne ñu ci was suñu àq rek pour ñi ngeen xamante ne am nañ ay handicap ñu sentir seen bopp ni xale yëpp di sentir seen bopp donc ñu ngi ciy def ñu ko mënee ñun nag ay supporters lañu supporters football moo ñu xamale géej waaye football club lañ doon supporter ba xamante fa. xamante bi nag dem ba ñu jàppante ñu gis ne ne mbooloo moomu warul nekk rek di ñëw stade bi supporter après ñibbi war naa mën a jëriñ quartier yi lu ci ëpp ci supporter xëy na sax day sonal quartier bi ay and leen ket wala ay histoire ak yooyu demee noonu mais ñun contraire lañ bëgg a andi beneen façon de supporterisme lañ bëgg a andi boo xamante ne dañuy jëriñ suñu ville jëriñ suñu quartier jëriñ suñuy population donc looloo tax man ma bëgg et je suis très fier de cela d'être le président président mais comme man je mag président je suis fier de vous, bu mag c'est les soldats de vous ni ñu am jom lañ vous ci suba consultation ophtalmologique mooy ñi nga xam ne am nañ ay problème bu bët xam nañ ne consultation fii bi ci gën a yomb dina nekk junni te da ngay wut rendez-vous des fois mu nekk ba deux mois boo bëggee lu gaaw di nga fay vingt cinq mille boo paree ñu jox la aw ordonnance nga war a jënd ay verre ay trente ba quarante cinq tey def nañ consultation boo xamante ne cent quatre vingt personnes profité nañ ci consulté nañ leen may nañ leen ay verre loolu tamit nekk loo xamante donc loolu rek mooy ci ay réalisation yu ñu def bis ni ki tey donc comme c'est pas l'ordre du jour mënu fi nekk di wax li ñuy def ak suñuy objectif ak suñuy plan mais ngeen xamante ne rek daal jeunes yi ngeen di gis ñu porter fièrement le maillot de Guédiawaye c'est parce que dañu am fierté am am tamit plaisir am am am am xaw euh, nuñ koy waxee te sax ci wolof dañu am loo xamante ne daal dañu gëm seen dëkk bëgg seen dëkk bëgg siwal seen dëkk fu dem tamit bëgg ko fësal loolu moo tax foo leen gis rek da ngeen yaakaar ne sax xëy na benn yëre la am mais dañoo am plaisir di forte yëre bi muy wane ne ñoom géej waa dañ loolu weer koo daaw def nañ cérémonie bu mel nii à wax ngeen ñu seen i problème rek ñu nekk ci dajale sunu am leen andil mu neex leen trop ñun tamit biñ ñëwee liñ fekk tamit dépassé woon suñu njort parce que dañoo ñëwoon rek pour dimbale mais bi ñu gisee gis nañ ne ñii ñu mat a dimbale lañ ñii ay néew doole lañ ñii ay xale yoo xamante ne ne waruñu leen seetaan moo taxoon ren bi ñu def si suñu doole ba pare ñun nañu wut ay ay ñeneen ñoo xamante ne tamit ay bàyyi defar yàlla lañ ñoom ñu def si seen doole ci biir loolu nag Nestlé taxaw na ci taxawaay bu mat a mat a mat a mat joxe na fi ay carton de lait yu bare bare bare bare Nestlé taxaw na ci am na beneen société bu ñuy wax tamit Banilia distribution moom it taxaw na ci bu baax a baax a baax joxe na ci ay saaku saaku saaku suukar am na tamit ay nit ñoo xamante ne individuellement dañ seeti ji rek ñoom it seen xool tooy ci ñoom ñu ñëw jàppale ci ci ñooñu mën nañ ci site le directeur de l'hôpital Dalal Jàmm monsieur Dar mën ci citer tamit Abdoulaye Seye moom am na moment bu ñuy wax Guédiawaye Debout mën nañ cité Ahmed Aydara jàpp na ci communication bi yéen ñëpp dégg ngeen ko ci rajo yi mën nañ ci cité waa sunu foot local ñoom it ni ñun lañ rek ci football bi la mais à travers tout Sénégal mën nañ ci cité suñu mag ni waaw la génération 90 sama morom yi ñoom tamit ñu ngi fi waaw bu ñu fàtte ci léegi tamit nga xamante ne dañuy wax ni rek xëy na suñu xel fàtt ci côté boobu donc daal mbég euh, nañ trop lii ñu def nii dañoo waxoon dañuy def ay loo ku fi jógee dina yóbbaale ceeb yóbbaale diwlin yóbbaale suukar yóbbaale couche yóbbaale céréales yóbbaale doo loo yi fi nekk yëpp daal xëy tamit am na yu ma di fàtte mais distribution bi xëy na day yàgg te day xat ensuite nombre bi tamit comme mënuñu ko woon xam exactement distribution bi day xaw a jafe moo tax décider nañ de toute façon bàyyee leen ko nag mais nag ak sunu contrôle am na liste bu ñu wax ne nañu fi teew fii ba fexe ba ku nekk fi teew di nga ci bokk dinga nga si jot looy nekk fii bu ñu ko xaymaa nekk na un million ak lu teg tuuti donc loolu tamit ñu war ci tàcc ñi nga xam ne ñoom jàppaloo ñoo mën looyu ñun ñoo ko tànn tànn luñ ko waajur yi xale yi lañ ko tànnal xam nañ ne xale yi seen nekk dafa jafe lu ci ëpp meew la ak serel ak ñi ñuy dimbale tamit ak suukar ah donc ak ay couche te foog naa ne xale yi loolu lañ gën a soxla bis bu jot ngeen soxla lu mel noonu donc ren tamit def nañ lu raw daaw mais déwén bëgg nañ loo xamante ne tamit dina raw ren te commencé nañ ko loolu li ñu koy may du suñu doole ñun dong mais suñuy pexe parce que lii xëy na participer nañ ci mais lu ci ëpp tamit si ñeneen ñi nga xamante ne ñooñu jàppale ci la jógee donc moo tax déwén am na ay partenaires yoo xamante ne commencé nañ ci wax ak ñoom mais nee nañ tamit dañoo yéex a ñëw wala tamit am na ñoo xamante ne ñëwal nañ seen bopp pour gisal seen bopp am na ñu nekk ci yoon bi sax bay ñëw xëy bu ñëwee tamit ñoom it andi seen doole bi demee noonu donc mel na wóor na tamit déwén moom mooy raw lii parce que chaque année dañ ciy profité yokk suñuy relation yokk confiance biñ ci am ak par rapport ak yi donc ci gàttal loolu laa amoon lu may wax di leen gërëm ñu war a jox euh, aana